dañ ci ànd ak Mouhamed Talimou Ba. dal leen ak jàmm Ndella Madior Diouf dugg na ci rapide sambalaw be du fu ko neex lay terse di wàllu pouponnière bi mu tuddee kër yërmande yi bëri jàpp ni ah du kër yërmande ndaxte lu fa xew na libération nee na ah ñi ñu laaj yëpp daanaka ñoom dañu enfoncé kii di Ndella Madior Diouf dañoo ne nañu waxante dëgg dañu waxante dëgg Ndella Madior Diouf pouponnière boobu du kër yërmande dóor kaay wuti waaye xaalis daanaka lool la ko doon doyee waa dóor marto waaw naataango ne wax loolu mooy lan Ndella Madior da doon utiliser ay tur nit ñi siiw daanaka dañuy dem ci koo xamante ni ministre la wala siiw chanteur la ne waaw may naa la doom waaw tuddee naa la doom xam nga loolu tuddee naa indil mu jënd meew jënd couche indil waaw jox naa la tur wi kooku joxe un million deux millions jël xaalis boobu kaaw ko garde sama naataango yokk ni am na benn koo xamante ni moom dafa dem ba benn ma ne waa léegi Ndella Madior Diouf jàppale naa ci ma sama doom dama bëgg a dem Ndella Madior ne yow dangaa bëgg a jëlaat sa ngaa bëgg a jëlaat sa doom cinq millions indil lu ko mooy du fi bouger ma wax la ko ma naataango yokk ni ah am na sa ay accouchement clandestin yoo xamante da ko doon def foofule ngir récupérer bébé yi sama naataango yokk nii waaw lii lii lii doy na waar juróom-ñaar lunu yoo xamante ni ñi doon liggéeyee ci Ndella jot nañ leen placé garde à vue ñaar bi ñu toj ko fu mu toll ni ñu ngi jéem a xool naka la ñuy identifier yaayu xale yi xam ñan la sama naataango ne ah rapport médecin yi ñu ngi koy xaarandi itam naka noonu état de santé bébé yi sama naataango ne ah responsabilité état Sénégal taxaw responsabilité état Sénégal xaw na ndaxte munul ne xamul na woon amoon na baax a baax lu xewoon ci kër Ndella amoon nañ ko garde à vue Ndella Madior Diouf dañ ko prolongé ba mardi sama naataango ne ah état nag nee na loolu am na waaye dinaa constituer partie dinaa constituer partie civile ndaxte ni dañ na tooñ enquête loolu la wax mu toll nii bi le journal Les Échos ne ah kii di Ndella Madior Diouf daanaka fête Noël moom dina ko dégg ci commissariat bi foofu la koy passé Noël foofu la koy def sama naataango bi di journal Tribune ne Maïmouna Cissé Kouma wax na directrice agence nationale la petite enfance de la case des tout-petits daanaka nee na foog ñu yokk kon mesures yi ci wàllu yorum crèche yi ak pouponnière yi ñu wax ci politique ak kii di Barthélémy Dias xam ngeen démb ñuy ko doon atte fële ci cour suprême ci wàllu affaire Ndiaga Diouf bi sama taf na sàpp ci Barthélemy Dias de ndaxte ku nekk xam na fu mu toll nii moom itam mi ngi ci guddi ju bët waaw mën naa tàngoo ne ah kii di Barthélemy Dias ko attee démb bi a ah, bu moyul bu ko dina perte kon mandat député bi mën naa tàngoo ne du loolu kese mun na itam perte mairie Dakar loolu tamit na ko xam réew mi quotidien ne a ah, Barthélemy vers la sortie daanaka parrainage des élus itam mun na gàllankoor kii di Khalifa bu fekkee ni option boobu la def benn spécialiste droit naataango waxtaan na ak kon Mbaye Cissé kooku ne kii di président Macky Sall dafa obligé révoquer maire de Dakar foog mu signé di jëlee Barthélemy Dias ci maire de Dakar loolu obligation sama naataango bii di journal L'As ne Barthélemy Dias mu toll nii kon Barthélemy Dias daanaka moom ah Aïssata Tall Sall lay lay xaar yor na mbol nde di ko xaar ndax dina xàcc dóor wala dina ko baal sama naataango bii di journal Sud Quotidien ne mu toll nii kon ah kii di verdict cour suprême na cour d'appel Barthélemy est moyul président Macky Sall dina signé ne Barthélemy léegi nag nekkatoo député léegi nag nekkatoo député nekkatoo maire maire maire Dakar man naataango yi ne ah, fu mu toll nii kay président Macky Sall ak ministre de la justice ñoom ñoo sëkk Barthélemy mu nekk au milieu juste ku nekk mën na mbéj à tout moment sama naataango ne Cour suprême kon confirmé loolu nee na itam Barthélemy Diaz yow mi tiire woon ci Ndiaga Diouf di nga fay vingt cinq millions famille de famille bi ne woon nga doo fay da ngay fay 25 millions wax naa la ko terminé Barthélemy Diaz wax na ci Vox Populi ne man mii Barthélemy man laa député taxul ma rey sama bopp non mandat député taxul man ma taxul ma de su ma nekkul député ndax dinaa de am na ay nit ñu bëri ma leen di gis ci réseaux sociaux yi kontaan bëgg man ma jóge ci mairie Dakar loolu mooy la ah waaye nañ muñ bu ñu ma catu de bu ñu ma catu ndaxte maa ngi ci bopp mairie bi dinañ xam ni daanaan lañ se lañ ko sekkal nag waaye nag bii di soleil ne waaye nag sama naataango bii di soleil ne ah bu fekkee ni daanaan la de dinañ xam ndaxte fu mu toll nii moom sombre perspective rek guddi ju bët setikul man loolu laa gis pour Barthélemy Diaz sama naataango bii di journal Le Quotidien wax nag ci immigration irrégulière nee na ah ren ji Sénégal yëf yi métti na ci moom ndaxte vague de départ yi bëri woon na ngir dem ci îles Canaries naka noonu comme xale yu bëri ñàkk nañ seen bakkan lu bon bon 7000 morts jot nañ leen recensé ay pirogue ak ay passagers ñoom ñëpp ñu dugg ci géej ji sama naataango bi di journal Vox Populi wax nag ci projet Sangomar bi ci wàllu exploitation gaz bateau boo xamante ni war a génnee kon gaz boobu lee euh, jóge na fële ci Singapour foofu lañ ko doon defaree sama naataango ne ah jóge na démb kon ci chantier naval boobule ngir wutali Dakar te ñu koy xaarandi ci suñu réew février euh, Coupe d'Afrique des Nations ah sama naataango ne Boulaye Dia moom démb da doon joué waaye nag génn na sur blessure ndax moom dina mën a joué kon Coupe d'Afrique bi ndaxte soreetul la sama naataango bi di journaliste Écho moom jox parole journaliste bi di Aboubacry Ba moom nag wax na ci Sénégal ak chance am sama naataango ne a ah Aboubacry moom dafa optimiste nee na ah Sénégal dama ko gisee de a ah, man jàpp naa ni am na chance bu baax a baax continuer di garder des nations le journal Stade Quotidien wax nag ci mercato bi sénégalais yi nekk ci euh, l'Olympique de Marseille war a jóge foofule sama naataango ne Iliman Ndiaye nekk na ci situation boobule Ismaël Sarr ak Pape Gueye sama naataango ne ah ñoom fan lañ jëm sama naataango ne boo moyul de ñoom ñëpp dinañ dem migré fale ci Angleterre ci Stade Quotidien ba léegi Ligue 1 neuvième journée Teungueth FC dina jouer contre Jaraaf de Dakar choc au sommet loolu la journal bi wax ci euh, sunu lamb ci si dimanche bi ah kay bii combat loolu la sama naataango wax sama naataango yokk ni ah encore un grand contre un petit ci arène bi gannaaw Modou Ama Baldé gannaaw Modou Lo Ama Eumeu Sène Tapha Tine Lac 2 Siteu Zarko Diène Kairé Zoss Ada Bombardier dina kon affronter Reug Reug ci dimanche bi ci arène nationale Pikine sama naataango ne ah choc xale contre mag ñu koy xaarandi sama naataango ne ah dañuy xool ndax Reug Reug dina won Bombardier moom mi màgg na jërë ngeen yëpp